jur fitna ci réewu Sénégal ma ngay sàkku nag ñu daal koy saxal ci réew mi sàkku ci góor ñi itam nag ngir ñu daal dakkal ni ñuy fitnaalee jigéen ñi laas yëglekaay feelu ko ne divorce yu bëri kay nag ak mariage yu yi nag loolee lépp nag moom dellu suwaat na ci waral mu dippee ko la fatwa de Serigne Babacar a Mansour Vox Populi di ko feelu addu jëmale ci ziara générale bi nga xam ne rek amal nañu ko démb ca Tiwaawoon yéenekaay bi ne célibataire yi démb sëriñ bi àdduna jëmale ci ñoom lu jëm ci ñàkk xëyum ne rek doon amal moom sëriñ bi di xamle ci biir yëglekaay bi ne am na ay jigéen yoo xam ne rek am nañu fanweer jàpp ñeen fukki at ba juróom fukki at te ba nëgëni si nag nekk guñu ci buum te dafay doon suñuy responsabilité nag ñun ñi nga xam ne rek ñooy kilifay réew mi imaam yi chef de famille yi naka noonu président wala chef de quartier yi nag ñun ñëpp nag ñoo war a taxaw nag ba tey ci kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko moom sëriñ Babacar Sy Mansour ma ngay ñaawlu nag lu jëm ci divorce yi nga xam ne rek bëri na loolu jamono ji nag mooy tandikuloo soxna yi nag ngir ñu dakkal ni ñuy gaawee di ñaan divorce ndax sëy dafa Malick Ndiaye di jëwriñ nag ma ngay xamle solo si nga xam ne rek këru diine yi nañ ko ci jàmm ak ci réew Sénégal Le Soleil yëglekaay moom jamono joojee nag addu jëmale ci diggante Gambie ak Sénégal ak lëkkaloo gi nga xam ne rek daal nañ koy renforcer waat ci diggante ñaari dëkk yooyee nag ginnaaw ab tukki nemmeeku boo xam ne rek njiitu réewum Sénégal doon na ko amalee ca Gambie samedi jii ñu weesu yéenekaay bi ne moom président Adama Barrow ak kii di président Bassirou Diomaye Faye nak ñoom ñaar ñëpp engagé wu nag ngir gën a yeesalaat nag lu jëm ci wàllu accord yi maintenir nag lu jëm ci conseil président présidentielle bilatérale yi dalal gu am solo la ñu ko dalal moom njiital Sénégal foofee ca Gambie docteur Bakary Samb directeur régional de Tombouctou Institut nag ma ngay àddu jëmale ci voyage yi nga xam ne rek président bu Sénégal amalee na ko ca Mauritanie ak ca Gambie ma ngay xam ne nag ne la mu def ab tànneef gu am solo la tribune yëglekaay des ba tey ci boobee tukki nemmeeku nag jëm ci àll bi nga xam ne rek moom la dog-dogee waaye tamit lu jëm ci wàllu géej géeg a Gambie ca Sénégal naka noonu ca Guinée ma ngay xam ne ni nag bu ñu amul saafara jëm ci wàllu napp gi nag du ñu mën a am saafara jëm ci wàllu tukki mu jaarul yoon mi le quotidien yëglekaay des ci boobee visite nag ne jëm ci wàllu accord yi nga xam ne rek moo soxal wàllu kaaraange gi yéenekaay bi de Banjul ma ngay teg ay pexeem l'info yëglekaay dellu siwaat ci kàddu yi président Bassirou Diomaye Faye ci diggante Gambie ak Sénégal moom jiitu réew mi di xam ne ni nag dina fexe ba def jéego yu ëpp yi fi Macky Sall defoon teg nañu ay jéego yu am solo te loolee lépp mën naa doon njëriñ ci diggante ñaari yàgg mi ngi nii nag Sénégal doon dëkk bi nga xam ne rek dafay taxaw Gàmbi ci lu bëree bëri kon nag loolee dina ko fas yéenee wëyal ba Sénégal ak Gàmbi nag am relation yu mucc ay bés bi la jour dellu soir ci relation bi dox ci diggante Sénégal ak Gàmbi yéenekaay bi ne Barrow ak Faye jamono ji bëgg na ñoo mel ne mburu ak soow lii quotidien xëy àddu jëmale tey jii ci déclaration bu politique général bi nga xam ne rek premier ministre bi Ousmane Sonko bëgg na koo amal yéenekaay bi ne Benno Bokk Yaakaar ndax dañoo jëm ci déposer ab motion de censure delluwaat ci ay xupp yoo xam ne rek ma ngay jëm ci ab motion de censure boo xam ne rek tukkee na ci groupe Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi nga xam ne rek ñu ngay recadré waat porte parole bu gouvernement bi Les Échos yëglekaay dellusiwaat ci déclaration bi nga xam ne rek jëm na ci politique générale bu premier ministre bi nag Abdou Mbow ma ngay recadré waat nag porte parole bu gouvernement bi di woon woo nag ngir ñu respecter lu jëm ci wàllu séparation des pouvoirs point acti di ko feelu ne fi mu toll nii kay bu nar a ci diggante waa Benno ak waa coalition Diomaye a am doon laam-laamee na am na ko foofee ca conseil économique social ak environnemental Aminata Touré maa ngi koy weddi ba noppi nag di xupp le tey ji nag ci scandalu mille milliards yi nga xam ne rek moo jëm ci fond covid 19 yéenekaay bi ne Mimi Touré ma ngay tuumaal Macky Sall ak ay njabootam jëm ci mbuxum yi nga xam ne rek def nañ ko ci wàllu koppar beneen yëglekaay dellu soit ci rapport IGE jëm ci doxalin bi ñu yore woon nag conseil économique social et environnemental Mimi ture nag fi mu toll nii ma ngay xam ne ne nag kàddu yi ñu yëkkati yëpp ay manipulation la rek dërëm bu gën a tuuti nag duñu ko teg ci taabal ji ne luubal na ko yéene kaay bi ne ma ngay ragg aw deram moom ami Aminata Touré wax ci beneen scandale boo xam ne rek am na ca Nestlé enquête yëglekaay dellu siwaat ci gune yi nga xam ne rek jamono ji ñu ngi ciy sursi ginnaaw ab yëglu goo xam ne rek def na ko moom professeur Amadou Gallo Diop ne Europe nag jamono ji nga xam ne moom la ñuy defar nag duñ ca def suukara waaye fii ci Sénégal nag sucre bi nga xam ne rek moom la ñu koy mélangel toll na ci 6 grammes professeur galo Diop di leeral ci biir yéene bi ne ñi amee AVC nag nekk ci diwaanu Fann ñoom ñëpp seeni at